yeneen yi nga xamante ni boole na ko jiite ko ci ay xale kii nag fadal la buñ nee Fadel sa xel day dem ci fi mu nekk muy dakaar Buzz rawatina sociale bi nga xamante ne mu ngi koy def ci réew mi ñëpp xamee ko ko vraiment boo boo waxatee sax léegi làmb ñu ci bari ñu ngi ko ciy bëgg a génnee di ko yóbbu ci li nga xamante ni mooy social l'homme de social lañ ko tuddee ñu koy jaajëfal bu baax moom it ci teew bi nga xamante ni teew nañ fi ñu bëgg a waxtaan ci lu baree bare loo xamante ni ci wàllu làmb bari na lu bari loo xamante ni ñu ngi koy jiiñ site internet yi rawatina presse en ligne bi buur géwal euh, bari na yoo xamante ni intervention yu bari moom moo koy def ci wàllu làmb rawatina site di ku ci am jafe-jafe wala problème moom ngay woo Fadel tamit noonu fépp fu buur dem yaa ngi koy gis ci wetam Babacar nag invité woon nañ ko mais xam nga rek ak signature contrat yeeg tournage yi ñu ngi koy xaar bu ñëwee rek incha allah rabbi ñu gën a fu ñu fekk rek ñu jukki waxtaan wi ginnaaw loolu dañuy nuyu suñu kilifa buur bàyyi ko nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi mm-hmm. buur maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar taaliba sëñ Mbàkke Madina bi radiyallahu taala anhu jërëjëf Seyna Jili ñoo ngi lay nuyu mm-hmm. di la ziar ak di la mm-hmm. nuyu réew mi yëpp waaye di njëkkee sama niwa ci sama bunt ci cheikhul xaddim di mawlaana tabibi rijaalillah cheikhu cheikhu cheikh al murabbi mawlaana cheikhina Ibrahima Mbàkke ibnu sëriñ Mbàkke Madina di ñaan yàlla sàmm ko yàlla dimbali ko yàlla jàppale ko ti ki fi toogal sëriñ Mbacke Madina ci Cheikh Mbacke yàlla mm-hmm. dooleel ko. Mm-hmm. yàlla jàppale doomi Cheikh Mouhamadul Moustapha al Khalifa di Cheikh Ahmadul Mokhtar. Mm-hmm. yàlla sàmm ko dooleel ko ñuy jël nag nuyoo yoon wi yëpp. di ko teg ci loxo al Khalifa Cheikh Mouhamadul Muntaqa. ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir. di jël nuyoom di ko teg ci loxo mbokkam mu tedd ba. mbokkam ma nga xamante ne que ñoo bokk ci ma balay sak mam maaram mm-hmm. di Seydil Boubacar si ibnu Cheikh Mouhamadoul Mansour bal qawmi mm-hmm. di jaar ba Kaolack rek di ziar ñaari Cheikh Tidiane ja fa nekk mm-hmm. Cheikh Tidiane maam Khalifa ak ci nga xamante ne que mooy Cheikh Mahi Ibrahim di ko ñaanal moom it sama borom dooleel ko waaye di ñëw nag ak ziar ak ñaanal xalifa Cap Vert di al xalifatul muslimina Seydi Abdoulaye Thiaw Laye ibnu Seydina ibnu Seyna Imaam Allah alayhi wasalaam. di jaar doomu aadama yëpp di leen ñaanal di ñaanal way jur yi nag. sunu borom defal leen daan barakatan wa rahmatan fi barakat Cheikhul Khadim. di jaar suma mbokk mu baax mi. di suma nawle. di suma mbokkum deret di sama mbokkum ru Fadel Niang mu baax mi nga xamante ne que dama koy wax ni que tey site internet yi tey buñ ci doon tànn tey l'homme de l'année mm-hmm. euh, moom mi tey la war a doon dëgg la bu ci président de la république tey doon ci jukki benn doomu aadama di ko takkal tey ordre national du mérite. Mhm. moom mi la. à travers liggéey bu rëy bi mu def à travers Dakar Dakar Buzz Social. Mhm. Euh, muy koo xam ne su ma koy gis muy percé lu may neex lay doon damay fàttali ko suñu ndogu ba. Mhm. nga xam ne kër Aliou jàll la ñu daje ndeysaan. Mhm. keroog mu ñëw ne waa mais buur dugal leen ma ci affaire yi. dugal leen ma ci affaire yi billaay ba ngeen ma ci dugal damay dem ma ne ko billaay di nga ci dugg te bés boo ci duggee. di nga dem. donc alhamdulilah rabbil alamin ba bi yàlla defee lool. Euh, di nuyu kilifa gi Baba. di ko ñaanal moom tamit projet nga xamante ni am na ci mébét. Mhm. ci moo xam ci personnel am. am ci mhm. mébét ci liggéeyal ci réew mi. Mhm. yàlla na ko sama borom dimbali ba lépp yegg ci kanamam. di nuyu tout l' ensemble du personnel de Wassare bu dooj. di la <laughs> jërëjëf Buur am na solo lool. gannaaw loolu damay ñëw ci sama lakkal nga xamante ni moom solo naa ko trop Cheikh Mouhamadou Fadel borom ñaari soxla yi. <laughs> jërëjëf mm. maa ngi leen di nuyu baax di leen siyaare. Mm. Euh, di sant yàlla julli ci bi di sant Serigne Touba waaye di sant Serigne Saliou sunu yaakaar. Mhm. di ñaan toujours rek jàmm ci réew mi. di nuy ñi nga xam ne ñoo tëdd ci la lopitaal yàlla fëgg seen bopp. Mhm. ñi jiitu yàlla yërëm leen. di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi. di nuyu itam sama PDG Amadou. Mhm. nga xam ne tam. waaw euh, li ma naan lu ma doon moom la gannaaw yàlla. Mm-hmm. ndax bi ma ñëwee dakaar Buzz. Mm-hmm. moom moo ma jox ay lenge ne ma liggéeyal te lu ma def mu neex ko. mu bàyyi ma sama xel may liggéey. Mm-hmm. di nuyu équipe bu Dakar Buzz yëpp. di nuy sans maladie nag ndax xam nga lu ma laal laal ci maladie. di nuyu bonne volonté itam di ñaan yàlla gën leen a dooleel. di nuyu itam waa kër gi muy wasaare. ndax wasaare tam ñi ngi liggéey ci dëkk bi liggéey boo xam itam macha allah. boo fi tàbbee da ngay xam ne danoo yokk mais wàññiwuñu mm-hmm. te loolu mooy liggéey internet ku mën lu baax defal ku mën lu baax waxal mm-hmm. di ñaan borom kër gi yàlla gën koo dooleel ba mu yëbb ku niveau boo xam ne kenn ku nekk danaan wasaare tey yaakaaru woon mu yegg si fii mm-hmm. pourquoi pas parce que liggéey rek koy def te nit ku am ambition la nit ku bëgg lu baax la di nuyu buur nga xam dax la dëgg ndax moom moo ma njëkk a may fit ci internet keroog ñu koy wax ñu ngi daje ngénte Aly Diallo dama ko <laughs> aldi sama géer hmm. di ko wax lu baax xam nga ñun jool fu ñu dem wax lu baax hmm. daal ne ko mais buur kañ la ngay may éviter mu ne ma noo ñëwal boo ñëwee man xam naa ne dinga nga am dara hmm. te walaal angim ba ma dikkee gis na loolu di ñaan yàlla gën koo dëgëral te dooleel ko bàyyi ko ak xolam muy nit ku baax nag nit koo xam ne li ma naan weexal sa nawle du la tax a ñuul liggéey bi yaatu na seentu asamaan la jat buuxante nag ku nekk jël li mu war a jël rek te xam ne liggéey bi du jeex Mhm. di la gërëm nag sama xarit nga sama doomu day nga donte sax yaru yaru woo waaye ma gërëb la rek <laughs> du mën a ñàkk ci mhm. bi la buur mhm. bi ngeen di daje ci ngénte Ali Diallo boobu ci lan la la fekkoon ci lan nga doon yëngu waaw boobu fekkoon na ma ma nekk ci leneen di liggéey di jaay xam nga doomu géwél day nangu am jom di teel a xëy guddi wàcc di laa nag li laaj nga ma question bu ma bu ma neex parce que tooguñu woon di xool dan doon liggéey di góorgóorlu yokkal ma jaay la di dem ak a dikk di ko ma fëgg jaay rek jaay naa fëgg jaay lu ne jaay naa caleçon jaay t-shirt lu ne jaay naa ko ngir bañ rek jàppal ak guub far yàlla bi yàlla defee nag ma gisanteeg buur waxtaan ak moom ci loolu nag mm-hmm. su ma rek maa ngi koy gërëm aussi tam Bamba bokk ndey ak baay <laughs> mu nekk ak buur moom tam dakaar ak Actu mm-hmm. di fa caméraman mm-hmm. keroog moom moom a njëkk ne Dakar ba soxla nan la demal dakaar Buzz après parce que bàyyi naa fa seen numéro dinañ la woo. Mhm. Dakar Buzz woo ma. boobu defe naa Ngone moo fa nekk. ko boobu Ngone fa nekkoon ma xëy ngoone woo ma. ne ma Fadel Niang ma ne ko waa mu ne ma mu ne ma yaay rek frère Bamba ma ne ko waa Maga mu ne ma dana la soxla fi mu ne ko kañ. mu ne ma ginnaaw suba mu ne ko suba laay ñëw. xam nga li ma daan ma ne xam ko woo ko dara tuuti ko sow ma ne ko suba laay ñëw. ci suba ga nag ma sangu sol yi fi géwal nag xam nga daloo bëgg lu baax. trois pièces xam nga sol suñu yëpp la. daal dem wuy di waxtaan a ñoom bi ma demee tam ñoom ñu dalal ma waxtaan ak man. wax ma ci ne ma ci nii ngay doxalee xam nga nii ngay defee nii leen ko bëggee. par yàlla def nag sama bëgg-bëgg ak seen bëgg-bëgg yàlla boole ko. loolu moo may tey opportunité tey ba ma lii ma am ba tey foofu la sox ko gannaaw yàllanti bi daal buur moo ma appui nag. ne ma ñëwal am nga cër ci média bi am nga cër ci ci ci liggéey bi. te bi mu ñëwee te wax dëgg yàlla li ma ko lépp gis naa ko. Mhm. ngeen dem ba jamono ñëw buur yow mi nga xamante ni tey lépp ci mën naa ne ci presse en ligne bi ci la la fekk bokk nga ci ñi nga xamante ni wala bokk yow yaay nit ku njëkk ñu lay gis ngay ngay ngay ngay diviser làmb wala nga ko daan jël boo paree gars yi di la laaj lii fan lañ ko yóbbu ndeysaan mu doonoon loo xamante ni ñu bari yaakaaroon nañ ni dangaa ñëw rek pour filmer comme ni ñu daan def am envie filmer ba tey làmb toll fi mu toll loolu bu boo ko gisee actuellement site yu bari ñëw ban yëg-yëg ci waaw xanaa sant yàlla parce que xam nga nit dafay am gis-gis. Mhm. Euh, ku ne xam na ni euh, jamono bu ci nekk adduna bi dafay dugg sur une nouvelle air numérique. Mhm. bu njëkk télé yee fi nekkoon bousculade bi am tey ci internet bi tey moo fi nekkoon. Mhm. boobu y ba ay canal info. <laughs> y avait ay <laughs> ay télé école yeneen ak yeneen. tey gis nga dem nañ ba mu yàgg euh, les les téléw rek ñoo fi des rajo yi tamit aussi noonu la demee noonu gisoon nga fi ay Aabi FM ay Fagaru FM ay Soppi FM jamono mooy tëddee noonu man li ma dugal Sénégal sama benn xarit Mansour lañ doon jouer théâtre la koor gi ndax boobu téyër laa mais en même temps laa woon nag ndax moom ma sa nekk suma affaire mhm. euh, ñu tourné ba pare moom boobu Sénégal boo jumul moo fi nekkoon ak Sénéweb leeral aussi fi la ko fekk. Euh, defe naa bu ma juumul ñoom ñoo fi nekkoon ah Seneweb ak leeral ñoo fi nekkoon. Mhm. ak Dakaractu fii la ko fekk. Mhm. mais ñoo ñu pratiquement yënguñu woon ci làmb nekkul woon seen seen affaire. Mhm. Euh, Mansour ne ma booy gis naa la ci làmbi mbedd yi. boobu diggante Grand Yoff Parcelles. lu fa am ci làmb man ngay woo man maay def micro central soo da wàdd mu mën a woy bi ndeysaan moom la la àndal ñoom ñu nekkoon ñetti ñu jigéen bokk ndey ak baay mais ay siin maxa la ñu woon mm-hmm. boobu yoruma oto yoruma dara imagine condition yi bu làmb daan am man maay waxaale seen cachet maa leen daan yóbbu làmb bu may ñibbi si maa leen di delloo si mm-hmm. boobu ñoom lastandeer ñoo fi nekk di bëre ñoom zarko ñii di soog ànd ak ñoom Modou Lo ndax boobu ñoom Malick Malick euh, Malick Matraillès ñooñu. ñoo ñoo fi nekkoon ay ñoom Mathieu Pereira. ñoom Tafa gay de di soog a luqeeku. xam nga doon doon ay naa ni mbër ñoom mbës nekk ay xale yu tuuti je me rappelle très bien. ak ñoom ak ñoom jëf jël. ñoom Moussa Ndoye Timbar Masi nekk seen digg doole. ñoom Matar seen rog mbalax donc euh, ñoom soose Grand Médine am ay mbër ñoom pammarloo nekk ay ay ay jeunes xale yu tuuti mm-hmm. ay ñoom l'enfant noir ay ñoom góor fi boo yëpp jàngee sama kanam bëri mm-hmm. may wër mbappat yi nag daanaka daanaa dem loppat vendredi samedi dimanche Alaaji mm-hmm. Malick Guèye mu baax mi tey nekk seen TV moom ma njëkk wooy boor géwél ci làmb ñoom laa ko njëkk dégg wallahi azim Alaaji Malick Guèye bu seen TV tey def mbaboor mi ma ñëw mu ne ma. talent bi nga am doo fi ñëw tey may wax. am waxal ba giir ñi ñëw ma soog a wax. ndeysaan. <coughs> ñu ne ci ne ci. Mansour ne ma kon suba xam loo bëggoon booy. tournel benn émission Mansour dafa jël risque. ne ma tournel émission ma wan ko kilifa kër. boobu Sénégal amuñu siège amuñu dara. Mm-hmm. caméra ya fa nekkoon sax benn 7 moo fa nekkoon Birame moo ko moomoon. Mm-hmm. ak benn mag bu Pro bu bees Mansour aussi moo ko moomoon. Mm-hmm. boroom kër gi sii Sidi Mbacke ma di ko nuyu depachage passage moom tamit baax ku ma ku ma naw lool bëgg ma mm-hmm. lool. Sidi moom nekk Europe reste plateforme bi. comme Zarko laa maaseel daanaka ñoo bokk ndey ndax ñu seeni géew la judd. ma woo ko ne ko booy fa nekk mu ne maa ngi cité ma ne ko maa ngi ñëw keroog may dem Mansour moo fay taxi bi. Ah, mooy suma caméraman bi nekkoon Sénégal ñu dem tourné Mansour dugal émission bi émission bi def la gaa nag ak comprendre que effectivement lii ni koy jaay ci télé bi war nañ ko mën a jaay ci internet parce que moom cible boobu mooy les Sénégal de la diaspora mm-hmm. ñoom boobu amoon nañu problème mu seetaan lam mm-hmm. ñu wan ko vidéo bi mu xëy la lendemain woo ma yàlla def mu fekk ma sama kër yaay sax mu woo ma ne ma c'est buur ma ne quoi mu ne ma man la diw ñu waxtaan mu ne ma vidéo bi nga def de am na solo sincèrement. Hmm. damaa bëggoon nag nga intégré weer nag mën naa la fay cent mille. Hmm. ma ne ko man dey li may daw lépp ñaar ñii rek a tax sama mère beeg sama paa bi. balaa ma lay tontu xaaral ma laaj leen. ma ñëw wax ko paa bi mu ne ma demal nga waxtaan ak sa ay. ma ñëw wax ko maire bi dama li mu mën a gëm te xam ko mooy barke Serigne Babacar Sy mm-hmm. lii nga jël xam naa ne maa tax nga jël ko mm-hmm. demal nga jël ko te xam ni di ci am lu jéggi sa jort si di waat ma ne ko ah, maire bi nee na nangu na mm-hmm. ñu ne ci nag commencé yàlla may ma benn facilité boo xam ne ci mbaaxam mooy ci lu ma bëgg a wax dama ci wax yàlla moo ma may loolu nag tey bu ñu def émission tey soo ma bindaloon nii damay gàtt Mm-hmm. donc je préfère jàpp sama ñaamul nekk à l'aise donc ñuy doxal ci loolu yeneen site web bi nag commencé comprendre ne que nag affaire bi kon ndekete audience bi mu am ci internet. Mm-hmm. amul lu ko am. dëgg la ñuy commencé ñëw muy commencé yaatu. te wax dëgg yàlla c'est un plaisir parce que boo nekkee ci mbir. Mm-hmm. ba nombre bu doy waar ñëw fekk si la ci kon cela veut loolu nga doon def baax na. mais ñu bëri nag gëmuñu ko woon. Mm-hmm. da nga naan jël mbër sax suba mu xëy woo la waaw bu dee li ma jëloon démb gaañan la laay dépassé aan ko. boobu xamuñu lien boobu internet liñ ci xamoon. Mm-hmm. mooy Facebook lañ ci xamoon. Mm-hmm. pratiquement. ak Messenger ak Viber. boobu site bi fi nekkoon comme bu mag Face dakaar la woon. ay Seneweb peut-être ay Dakar ñoom ils étaient plutôt politique. seen article yëpp ci wàllu politique la donc ñu commencé xuus nag ci people bi nag. ak ci yenn affaire ba gars yi gëm am na solo buur léegi ñu ñëw ci ak Fadel ku ci nekk wax na fi nga xam ne tamit fa ngeen jaar. ba tey presse en ligne bi bokk nañ ci ñi nga xamante ne lépp lu am ci événement wu làmb bokk ngeen ci ñi koy doxal. mais nag buur dégg naa dangeen ngeen yàq rek bu ngeen demee événement jàmbur filmer jël xaalis bi dem yéen seen patron yi. dundee ko daal loolu moom dafa yomb trop Fadel. ay ca ñëw leen. xaalis bi waaw xam nga. Ah. Euh, question boobu dama ci sawar a leeral ci lu bari bari bari bari bari. mooy ñoom ñiy wax loolu. ku ci ne déjà léegi am nga site web bi nga ko amee rek coow wàññeeku na. mais dégg naa da ngeen ci lekk xaalis bari. dafa nàkk rek jiili. vidéo bu am deux cent mille vues sur AdSense. Hmm. bu la cay fay du ma dix wala dix dollars. ay quarante millions ngeen am par weer. génneel vidéo vidéo yi am les prix populaires. nga xool ma ban vidéo moo ci fay cinquante mille francs CFA. loolu je défie quiconque. waay hmm. xaalis bi xëj na yow mi nekk fële. te xamoo fu muy jaar yow lay jaaxal. mais ñun ñun ñuy gis xaalis bi nii di xam ni mu demee ak ni ñu koy fayee xam nañu ko. dama wax keroog senti bi ne leen ñoom baaba ñi sunu patron yi bu dee ci làmb rek la yaakaar kon dàq nañu bu yàgg dëgg la bi am wasaare mm-hmm. dëgg la làmb moo ci gën a remarquable mm-hmm. mais baaba lim ci am par weer fayu mm-hmm. fayu la te loolu dafa baax ñoom ñu comprendre ko noonu dama sey benn promoteur ne du ñu jël samay làmb lekk ci ay millions. ban làmb ban événement moo fi mës a am ba jeex. Mm. nga dugg sa plateforme xool vidéo ba mu fay la ci benn vidéo mille dollars. non Fadel moom da koy ñam. yéen moom waa Dakar ngeen. xam nga xaalis catu ba leen moom dégg d'accord jërëjëf waaye yàlla xam na euh, li buur wax dafa am solo. Mm. parce que loolu yaakaar naa ne coow sa waratu ci am. ndax kenn ku ci nekk bi nga ñàkkee nekk ci kumpa. Hmm. ba da ut sa sit gis nga la fa xew kenn ku ci ne xam nga ni kon li ma njort ne lii la ci nit ñi di am amu ca. Hmm. te benn coono bee ci ëpp. Hmm. ñaar di nga ci daj ay coono yoo xam ne wala léeg ainsi ñoom ku ci ne ba nga dawee di créer sa site internet am nga am nga maanaam am nga mbetteel. ku ci ne jàppoon nga ne tey jii créer naa sam site naa ci ay millions weer wu ne. te ku ci basé wu say employé la yóbbu ci yoon. <laughs> man de moom waxuma. wasaare déglu ma courant ndox. waaw déglu ma eh, ak yooyu noonu. location bi waxuma mën naa dàq. dama ne la paas Dakar Pikine rek mënoo ko cee génne ndax xamul ndax. lan ca yaakaar newu ca. peut-être ñun liñ ci bàyyi amour bi la. Mhm. ak yeneen business yoo xam ne parce que tam nit ki su fekkee dafay liggéey. Mhm. bëgg na ci am avancement. dëgg la patron de presse yi nan leen gën ñaanal yàlla dëgëral leen. ni ñuy def ba fay seen employé wallaahi azim ay coono yu métti la. parce que nit ñi jàpp nañ ni àdduna lu ci biir di ngi ko ci am te yow xam nga. Mm. baaba mi tey boo ko laajoon tey jii bu weer wi jege see tey ba mu bu demee la fay dootul nelaw. <laughs> dootul nelaw. <laughs> Ah, <laughs> dootul nelaw. dootul nelaw parce que ah. li ji li xalaat lépp mooy saa bu yeewoo xool xalaat démb tey la ñaata. léegi nag yow ki nga ko séqal tamit sa nawle di gor ngeen wax teg. Mm-hmm. tey nga war koo fay. te góor bëggul ko dut baaraam. boo dee góor doo nelaw. Mm-hmm. lu war seen diggante la. na nanu bàyyi site internet yi nu jàpp ne àdduna ak ñu ngi am. Mm-hmm. dootuma ci wax parce que kenn ku ne créé site gis nga la ci am après. ku ci la ñu am bedd bi mu ngi bëgg am parce que làmb léegi fi mu toll nii actuellement mu ngi jugee ci benn étape jëm ci beneen étape étape bi mu jëm mooy site internet yu bari dañ leen di génnee ci làmb ji mm-hmm. euh, yow mi organiser làmb ji nga ubbi sa site web bopp. def pay doxal ko mu dox te doo ci ànd. xam nga ji li coow li fi amoon bu ñu fàtte amoon na ci conflit télé yi. Mhm. entre la 2S. Mhm. RTS Sen TV juróon fi ay kata yu bari. Mhm. toog nañ fii ci plateau télé. gis doomi borom télé ba. songanteeg avocat diw. ci lu mel nii. dëgg fan la mujj. jër jër mbëpp. Mhm. làmb benn organ kese mënu ko promouvoir. Mhm. làmb déedéet. lu tax loolu. waaw parce que dafay loo xam ni tey ñi ci bokk ñoo bari jili boo jëlee jandeer gii rek. Mhm. di nga compter dix huit villages yoo xam ne balaa ngaa yegg Mboro ay lampes solaires moo fa am. ñoom seen possibilité ci déglu rajo la yem. on est d'accord. tey boo génnee bool gi rek am na yenn chaîne télé yoo xam ne mënatoo ko jàpp. waaye boo demee bitim réew Modou Modou yi di doomi Sénégal yi nekk partout dans les cinq continents. Mhm. télé ci poos rek lañu mën a xamee li xew. dëgg de. donc làmb benn organe wala benn médium mënu ko promouvoir. Mhm. benn bu ci des fi jamono toll. mooy ci bi internet la jamono toll jili da ngay toog seen kër ñu jàpp nii télé ku ne yor sa téléphone mhm. du mooy télé bi koo laa sax li xew ci télé danaan xaw ma ko buur ci kanam tuuti télé mm. décor lay doon meuble lay nekk sa man moom man moom kañ nga ci toog seetaan télé <laughs> <laughs> kan kañ nga kañ nga a laaj gis a laaj yow déet moom ko ay laajante lay doon ndax ñoo bokk li <laughs> man xam nga ba ci te loolu li la koy wan mooy suñu mbokk Modou Modou yi ne ci àll bi di leen nuyuwaale dañuy liggéeyee ba pare bëgg xam li xew ci réew mi mm-hmm. te kenn ku ci nekk fa ngay liggéeyee heure pause bi nga am di nga mën a profité génne sa téléphone mm-hmm. jàpp wasaare xool li xew ci dëkk bi dëgg ndax loolu mu amoon na bu njëkk déedéet bu njëkk match danaan am fii Sénégal war a football. wala 16h ci li ñëpp tëj seen magasin yi wàcc. parce que dama bëgg teel a yegg pour mën a am match bi. léegi da ngay toog sa magasin di jaay di seetaan sa match. àdduna mooy dox. te loolu yàggul buur Zos Xaadim Njaay 2 rajo laa ko doon déglu. xam nga. <laughs> loolu benn euh, nag. Euh, ñun ñëpp dañuy comprendre te. Mm-hmm. Euh, je me rappelle Ibrahima Faye bi mu fi ñëw def indi le système peer to mm-hmm. bokk naa ci ñu njëkk gis dajeeg man Iba Mar mhm. ne ma yow yaa ma influencé ba ma gëm ni que làmb mën nañ ko jaay sur internet. Mhm. il faut ñu gisee yàlla mi dara wul ñu gisal hôtel Fana. Mhm. Balla Gaye Modou Lo Balla Gaye Gris Bordeaux fa daje seen première rencontre. face te Gris ñëwoon Balla Gaye ñëwul. ñu waxtaan ci ay jéego yu bari. parce boobu wala ba jusqu'à présent sponsor yi raar na. amatul ça se comprend. Hmm. donc ñoom ci li ñu mën a rabattre mooy ci internet bi ak le système peer review amul problème. Hmm. mais bu fekkee ni dañ ci ànd en synergie ñun ñëpp. Hmm. jàppale leen ci léegi na yomb. xam nga tey jii li yow mi yore dàll bii di ko jaay. am ci dix paires. est-ce bu ko nekk ñëwoon jël benn paire kii dem Guédiawaye kii dem pikin kii dem Nangam doo teel a noppalu. am na ay combat yu fi jaar bu yàggul. Mhm. mbëri ñooy dem bay jël seen téléphone. di di di di di woo presse daal di may leen ngeen ñëw. waaw donc loolu c'est loolu c'est un mhm. mais aussi teewul ñun tamit nañ leen comprendre les promoteurs. Mhm. Euh, mënoo jël deux cent millions trois cent millions def ko ci làmb te doom système boo ko. boo ko récupérer loolu ça se comprend. mais loolu lépp mën na ne. te du yàq sunu collaboration ñun ak ñoom dara. nan lay nekkee. technique moom jile. Hmm. combat Papa Sow Ama Balde. Hmm. Pape Abdou Fall keroog moo ko tëgg ak le système PPV. Hmm. bi mu koy tëgg dafa yebal buzz. na ko demal ci organe yëpp nga waxtaanal ma ak ñoom. buzz bi mu ñëwee système bi ñu proposé. dafa yomboonte neex. muy ban système. buzz daf ñu ne ah, buur kat làmb kat ñun ñoo ko moom. Mm-hmm. ci suñu plateforme lañu koy jaayee. léegi li ñuy def mooy yëkkati suñu lien yi jox leen. yéen mm-hmm. site yëpp. kuy seetaan làmb ji mu neex la ak mu naqare foofu nga dugg te foofu ngay jëndee. deuxième condition bi mooy que site yu mag ñi may ñu ay bannière bu làmb ji desee quinze jours. Mm-hmm. troisième condition bi mooy ngeen ñëw filmer yéen topp événement bi. ñëw stade ba mbër mi ñibbi ba minuit ngeen soog a dugal seen ah, yomb na franchement teewul face to face ak point de presse presse bi yëpp dañuy teew hmm. liggéey ci parce que engouement boobu hmm. mooy charme làmb ñu di ko waxtaanee xoolal barki démb si tak Papa Sow ñu ngi koy waxtaanee ci grand place yi hmm. lan moo may Pape Abdou Fall atu boobu mooy parce que il a voulu avec la presse euh, léegi Luc Nicolaï da ngay wax mu ne la duma kuy koy di bàyyi si internet yi. Mm-hmm. parce que li ma bëgg porté bi mu bu ma bëgg mu am ko. xam naa ni ñoom ñoo ko mën a jaay keroog seen face to face bi avorté. Mm-hmm. jur na coowul une semaine. te làmb coowul fukki fan. ba noppi suscité. amateur yi supporter yi bu buñ sax làmb ji doon tey. Mm-hmm. ñun ñooy xorom ci cinde loolu la yàlla dogal. ku ñu fi bàyyi dañ lay bàyyi ak li nga yor rek amul problème xeexuñu xulóowuñu wax dëgg yàlla. Ah, loolu ngeen yaakaar yow loolu nga jàpp yéen moo la gën a xam li nga wax. xam nga ne boo xoolee parce que nit tam day nit du nax boppam. jéeli bi nu juddoo yàggul mais tam ñu ngi bëgg am ay ay fan. Hmm. boo xoolee combat yi jàll avant ak combat yi jàll yi yi mag yi jàll fan yi. Hmm. da nga xam ne am na différence. làmb coow. làmb hmm. coow. te coowal làmb avant làmb la. xam nga sànq wax nga ko buur wax na ko. Hmm. am na ay mbër yu mag yu la woo man am na mbër yu ma woo. Hmm. ak kaaj sama open press. Hmm. ma ne ko mënumaa ñëw parce que dan maa tënk. te loolu tey jii bu fekkoon tey jii la daan am mi ngi am. duñ xaar duñ xaar ku nu woo. ndax ñun jóge nañ fii dem ba ñeleng. kon kii dem ba ñeleng xaar ku ko woo. merewunu leen nag parce que ñoom tam seen raison la nekk. ñoo liggéey seen xaalis ñoo ko moom. fii nga ma yem fii laa lay yem. waaye daal xam naa ne boo tëggee làmb génn ci internet bi néew ma sa làmb dana mel na mu war a mel de du ko mel de waaye dana des loolu parce que dem nañ ba ban ay nit di ma woon naan ma làmb diw ak diw kañ la te boobu làmb ci trois jours a ci des. est-ce que du moo ko bëggee noonu. ah bah peut-être parce ku nekk ak système bi ngay liggéey itam di ko ñaanal itam lim ci bëgg yàlla defal ko ko ci. Hmm. ndax ñoo bokk réew mi te kenn ku dee yéene nga sa morom jàmm hmm. waaye. xëccu asamaan seeta seeta seentu asamaan daal jarta buuxante hmm. kenn ku ne mën ngaa liggéey te doo yàqal sa bopp beneen bi ci des tam mooy mooy comme ñun suñu biir tam hmm. ñu organiser wu hmm. ah, yéen moom buur bul yéen ci nga bokk ah, yéen yow ci nga bokk <laughs> ndax yow fu dawee jaam nga daw jaam ñoo <laughs> yow a ko bokk noonu fi ni jamee baaraam mooy manque organisation dafa xaw a nekk si ñun dafa am loo xam tam dan koy wax même du neex mais dañ koy wax parce tam bu fekkee da nga tëgg sa làmb def ci say centaine de millions. deux mille cinq cent sites nekk ci kaw ci ci ci ci ci géewu làmb bi day xaw a déborder. Mm-hmm. te bari na ñu ñuy tuddee site internet te sax du ñu internet. ay youtubeur lañ. Mm-hmm. mais tey bu ñu taxawee ñëpp dañuy jàpp ne internet la. Mm-hmm. loolu d'accord naa. ba tax ñun ñu gën a organiser wu waat xam ñooy kan bis bu nu toogee xam li ñu yor. du nu fekk kenn nit ñee ñu fekk si. ñu ñii ñi fekk si. Mm-hmm. parce que nit day am bis def ci ay millions di xaar retour nga jaay ko bis bi ñooy dem ci ëppal presse yi ñooy dem ci face à face yi. Mm-hmm. télévision yi actuellement nii seen jéego ci làmb bareetul. déedéet. image sax internet bi la ñuy jël. Mm-hmm. ñu la ñaan nga sa ëppal presse ñu la ñu may ma image. demoon nga ëppal presse may ma image daal di monter def seen logo jeex na parce que coono ba ca nekk jaralu leen ko ëppal presse nga di ciy boo jógee ëppal presse su ma demee. damay naan ndox lu tëdd ndax daan may cooñ cooñ ba sama faar yi dama naa kat dañ cee dugal ay xeer ndax bu mbër bi da fitti jaar nii nga daw jaar nii ñaa ànd ak mbër ya xamuñu liggéey jiir yi dañ lay daal di door ay conc bu ma ñibbee damay tekk sama daal yi tëdd boobu coono nag da ngay xam ni bëgg moo koy def kon nanu waxtaan te xam ne séntu asamaan daal jarte bu konti manque de considération bi parce que lamb d'habitude bu ñu ñëwee nga nekk presse surtout presse en ligne bi booy ñëw di dugg si niñ lay buntu xataalee niñ lay xatalee niñ lay kii loolu yaa est que yéen a ko liggéey ci làmb. non non loolu tam ji daf ci am loo xam tam ci nit la. Mm-hmm. parce que dafa am loo xam tam sa yëfu bopp la. Mm-hmm. du presse sa personnalité bopp la. Mm-hmm. man de wax dëgg yàlla du ma ñëw ci benn buntu làmb. ñu may buntu xataal mbaa di ma ñàkkal fayda. du ma la ko may. sama charisme du ma la ko may. te wanuma la ñàkk fayda gu tax may wan loolu. yaa moom sa événement bu la neexee ma dugg liggéey. bu la neexee bëggumaa liggéey ma ñibbiwaat te dama dem fu ma woowul te sama ngor mooy ma tam ma tàbbi ci événement boo xam ne liggéeyu ma ci. Mhm. bari na ci événement yoo xam tey dama naan sama cameraman du ma dem c'est parce que liggéeyu ma ci avant làmb ci. Mhm. kon comme liggéeyu ma ci boobu bu ma tooñ naa toog sama kër am na mhm. ba tàyyi mais dem ci buntu moom ñu may bund xataal loolu moom dafa am loo xam ne nag du yëfu peres yëfu nit la. Mm-hmm. du ma ko may kii ko soit. Mm-hmm. parce que loolu moom man maa ko moomal sama bopp. Mm-hmm. kii ki nag la muy gis ci yow ba tax mu ñàkk laa respecté ba mu lay doy jël xëj na yow yaa koy wan loolu. adduna ku ne da ngay jox sama doom cee rek Sénégal door mën a jëm kanam. buur damay ñëwaat ci respect boobu parce que gis naa fi barki démb benn mbër euh, franc def open press dara desul lu dul wax mu bedd leen fa dem yoonu loolu bi nga ko gisee c'était la première fois ñu di ko gis ci làmb mbëru làmb def ko ban gis-gis nga ci waaw xam nga euh, pour ma àtte ko d'abord foog ma nekkoon par nekk ma foon dama yeble woon. Mm-hmm. bon li ko motiver ba mu def loolu d'après dégg naa explication mooy Modou loo moo fa ñëwoon nangam nangam genre affaire yi quoi. bi mu waaw mu waaw bi mu waree dem xaw ma lan lan xale yi nangam mais. Mm-hmm. Euh, ak lu mën am. mooy ñoom ñëpp ku ci nekk bi ngay débuter. Mm-hmm. soxla woon nga presse te ñun xam nañ ci dara. xëy na yéen ñi mujjee ñëw ci millier bi sax garaawul. Mhm. mais tey man ak ñu mel ni man. Mhm. dañu daan woo père buur doo ci jàpp. Mhm. moo tax nag man personnellement man benn mbër mënut a fees sama bët ak koo mën doon barke Cheikh Moustapha Mbacké. mais euh, wolof dafa ni euh, bukki bu dabee ponkal. ci doxin wala ci doxin wala. ñu la présent liñ dañu war a changer suñu doxalin. ci lu bari. mais surtout suñu comportement damay euh, faral di wax ni le mot une presse poubelle mm-hmm. ça fait mal au mooy tey utilité ban ak taxawaay ban la ñu war a mën a am ci réew mi chaque jour damay sawar ci jël l'exemple de Farel mm-hmm. ñaata doomi aadama la fi dimbali ñu opéré leen ñaata doomu aadama la fi dimbali ñu seen situation changé. ñun presque en ligne bi ñaata artiste lañ fi promouvoir gunge leen. du jeex ñaata mbër. du jeex ñaata politicien. bari na pourquoi suñu yu positif yooyu duñ ko jël teg ko à la place de de de yu yu bon bon yooyu ñu ñuy waxal. Hmm. léeg-léeg nga gis nit ki buy wax ci ñun day utiliser ay termes yu grossiers. Hmm. réseaux sociaux yi. Hmm. fen rek la mën. Mm-hmm. site internet yi. fan rek la ñu mun pourquoi site internet yi ña fa nekk di fa liggéey du ñu ay kilifa wala ñooy père de famille. donc pour ñu mën a changer données yooyu. Mm-hmm. mooy que ñun tamit faut qu'on soit plus responsable. ci suñu liggéey ak suñuy doxalin. nee naa médium yi ñor. taal na am réew. tas na ay kër. gàddaay loon na ay famille. gent loon na ab dëkk vraiment ñu waxante dëgg mais pour information yi presse en ligne bi di génnee. waaw ñu ci bari te du doon dëgg. waaw waaw barki démb rek. Mhm. Euh, may ñaana suñu papa saa Kajoor boo mu génn àdduna. Mhm. Mhm. yàlla yërëm ko te xare ko àjjana. mais génn na fi àjju àdduna ñu del saa Kajoor numéro de def ko waaw xam nga ba tey yaa ngi may yaa ngi may fekk ci li may wax. ñëwal mooy li ñu war a joxe mooy des des informations sûres et vérifiées. léegi loolu ñan ñoo koy joxe. ñun ñi ci nekk ñun ñooy les vrais yow fay xëy. wasaare. sa sa sa ret chef war na mën a tey man Dakaractu gi ma nekk. Mhm. su amee information bu concerne làmb. Mhm. balaa ñu ci jëf dara. man la ñaan buur yi dañu dégg ni diw de nangam. Mhm. su ma ko yëgee te mën ko dëggal ñu bind ko su ma ko yëggul dinaa vérifier source bi parce que bu ci erreur amee. man may responsable bi alors. Mm-hmm. noonu lañ koy doxalee ci wàllu football. Mm-hmm. ci politique mooy source boo fa gis bul ko werante mm-hmm. ci information mooy lu am la. te am na yeneen site web yu mel noonu. maintenant nag lii suñu problème majeur. mooy les youtubeurs. man mi jiite naa ci kuréel boo xam ne mooy le groupement des jeunes reporters. li tax ma nangu ñu dajaloo ci kuréel googu ma téye leen. Hmm. tey jiite groupement des jeunes reporters jiite charge de reporter de lutte en ligne. Hmm. amul amul noflaay. mais xam nga lu ma ci jublu. Hmm. su ma nekkee seen biir jiite leen dinaa leen mën a wan yoon bi. parce que ñooñu ñooy problème presse en ligne. donc bàyyi leen ñu dem. bu yàggee day yàq lii. ñoom dañu yàqule ba pare lii yàqu. te alors que am nañu chance mun leen contrôler booy euh, bu ma dee xool groupe bi sax damay tiit parce que plus de deux cent cinquante jeunes yu ci nekk. mais ñooñu est-ce que dañ leen war a bàyyi nii rek ñu ñu dem fu ñu amee information for la ñuy for ci page jàmbur. donc gis naa ni que débat yi yi mu ngi commencé. Mm-hmm. wàññeeku parce que au moins am na ci. kuréel gu ñu daje. Mhm. boo xamante ne que am na ay nit yu responsable yu fa jiitu ñoom tamit ñu nekk ay xale yu dégg ndigal chaque jour dama naan leen euh, dee leen ko teg ci yoon. Mhm. dee ko teg ci yoon. ba ñeneen ñi gis nañ ne que teg ko ci yoon boobu mooy seen njariñ mais beneen phénomène bi. Mhm. mooy ñu ñu tuddee le buzz. la majeure partie d'entre ñi ñu koy def. ñoo ko bëggee noonu. Hmm. oui da gis. ku def ngan na njombe bëgg am la buzz wala buur nu mu demee nga ne mun la xoolal sama vidéo dóor ko waaye. ah bon waaye ñu coow ko ñaari fan. wala nga gis ku bëgg a régler diw compte compte personnel mm-hmm. am ci lu mu dal ci vidéo am dara boo faril faril kii daf ma doon jaay kat. na ñu ma baal sax ci terme bi. Mm. vidéo bi caw ko waaye moom nu ma def ak yow. yow yow buñ la waxee loolu. yow miy liggéey. Mm. man de su ma ko doon def dépassé naa fii. waaye bu yàpp yëpp meloon ni jën. bu yàpp yëpp meloon ni res. paaka du ci du jam am buur li ma lay dog foofu mooy man mm. man li ma naan si liggéey bi. nit woon ma. Mm. ne ma kaay nga tourné nga émission pour ma yàq diw. ma wax te li muy wax peut-être am na fu mu sukkandiku. loo xam ne bu génnoon tey taal dëkk bi. Mm-hmm. te Medoune mi may seetaan xam na ki may wax. parce que ki ma woo ko. Mm-hmm. dem na ba ne ma kaay woo la woo na la mm. kon xam nga li may wax mm. kaay ma wax te kooku tey di koo xam tey jii nit ñi dañ koo bàyyi xel mm-hmm. kaay ma wax dem na ba proposé ma ne ma dama lay jox quatre-vingt mille mm-hmm. ma ne ko man dërëm ak junni laa yemale mm-hmm. ndax ku ñaak suurul ñett du la suur ñëwal ma defal la nànga ma ne ko noo baax na ndax man nit du yàqee nit ci man du ma wax lu ñaaw du ma du ma arme kenn. Mm-hmm. xeexlewuma kenn. sa problème yow ak diw yéen ñaar la réglé leen ko. Mm-hmm. mais du Dakar Buzz la koy waxee ci Fadel. Mm-hmm. si di nag bari nan demal wër ku la neex mais yooyu mooy waral nga tey fekk tey benn nit. peut-être mu bëgg Buzz bëgg bruit bëgg maa njëkkam information bi. mu woo la yow kat damaa bëgg a wax nànkam kooku bu fekkoon muy ànd day teg ku dugg a daw. rien que pour génn information boobu. mais dina am information bi génne ko mais yàq ga muy yàq àdduna kooku. Mhm. te fa yow a egg du man yeggu fa. moo tax lu nit di génne na ko xool lu nit di wax na ko xool. Mhm. man soo ma woowee sax di ma wax affaire émission sax dama lay laaj ci lan la ñuy wax. Mhm. ci lan la ñuy wax nga ne ma nangamay la noo Dakar ba du xul du teesante kat. du tontonte waay. waxal ci leneen. boo xoolee ba ci social yi may tourné sax léeg-léeg ma jëli ma laat mu bëgg a dugg ci xuus ci diw de nangam bëgg tàng ma ne ko non loolu concerne wuñu mhm. li ñu indi mooy jàppale la pour nga wër. dëgg la nan wax ci loolu. Mhm. moo tax nit ñi balaa ñoo génne information noonu xool li ñuy génne ndax lim mën a defar bari na mais lim mën a yàq daa bari. Mhm. te man de nee naa leen na ma ñëpp dégg man nit mukk du ci man wax lu ñaaw. déedéet damaa xooloo ji li wax ma ma ma taal ko coow. noo taayi ko du ma dikk. am na solo Fadel euh, buur dañuy ñëwaat ci làmb. gën a xuus ci combat yi nga xamante ni semaine bi xam naa ni combat yi gën a neex la ci làmb su ko defee ñu ñëw ci affiche yi nga xamante ni promoteurs yi jot nañ koo tëgg bay bay waaj a jàpp date wala yenn yi jàpp nañ date ñu ñëw ci diggante Colifay 2 ak général bu fas ma nga am fële ci arène nationale. Colifay 2 tarki daal kon a xam na ni bokkoon na ci. leet mm-hmm. naa yi nga xamante ne que ñoo daan ànd ak Siteu mm-hmm. ñoom ñoom Abu Ndiaseek mm-hmm. euh, ñoom euh, kii euh, bébé bébé Fora ak ñoom Maama Lamine Thiat Fora booy yooyu waaye Coly Faye fit wi rëy na doole ji bari na waaye saa su ne njuumte daf ko yomb ci bés parce que li ci ëpp day yenu bés général bu Fass kenn dàq ko bari mais des fois topp objectif am jusqu'au bout daf koy xañ gis nga claf euh, ci claf bi mu jógee mooy clafu Fallou njaay bi tey Général Fass waroon na mën a finaalu sax ci claf boobu mm-hmm. ndax ñim ko bokkaloon tey ay ñoom nongolo ay ñoom ñàkk jariñ yokk ñoom fër euh, ñoom euh, ñoom raam daan hmm. booy yooyu kenn ëpp ko ci kenn dàq ko ci bëre mais day topp objectif am de trop te làmb de objectivité làmb calcul la hmm. yàlla def ma dugg ci claf boobu génn ceeg ay défaite ak benn victoire Kolifa hmm. euh, it gis nga bu yàggul moom tamit fi mu jugee jugee ci défaite tey suñ leen boole waatee sàm sàmbay Mm-hmm. Euh, war leen boolewaat combat bu capital la ci ñoom ñaar. Mm-hmm. parce que général xam na ni que fii mu nekk tey du place am. Mm-hmm. donc déclencher la bëgg pour demat ci kaw. ku li fay dee xam na ni que euh, ci xale yi mu mujjee euh, jugee kéwél la mujjee bëreel. kéwél daan ko. jël bu jël bu jël bu doy waar. donc moom wóor na ko ni que dafa war a dabuwaat. Mm-hmm. duggaat ci cercle ay moromam. Mm-hmm. donc euh, combat bu neex lay doon boo xamante ni que def nañ amateur bu ñu teewee esat dinañ am lu leen neex. waaye bu amee avantage général la. parce général moo gën a judd gudd moo gën a jot ay loxo. général pratiquement ay deux mètres nangam lay <laughs> lay mesurer. Mm-hmm. donc bu ñu bëree à distance général wàcc ci ay tànkam nag. bañ ko sigg jox ko bopp lool. mais na toog ci ay tànkam dëggal boppam ci xeex bi ragal naa ne bu dëggalee boppam ci xeex bi rek li mu bëgg mën na ko am. bëre bi. Euh, bëre bi ba tey général euh, général moo gën a saf ci bëre. Mhm. mais Coly Faye euh, dafa am xeetu bëre yu mu mënee. dafa pànk waaw dafa pànk. Mhm. mooy ñaare bu contact bi diibee rek. Mhm. da lay imposer sa suprématie. mooy li nga koy def kay da nga naan dañ naan cirix cirax ngeen daje nga juumloo ko. waaye bu ngeen contact yi ku ne tey ngem ne bi yàgg tuuti rek mën na mën na mën na la bett quoi. mën na la bett. Fadal ñu ñëw ci Gris 2 waaye eh, suba ci bés boobu. pël bu rafet daf ci am bés. le 3. le 3 mm-hmm. pël bu rafet. suñu jigéen pël bu rafet bu bool TV nga xam ni kenn la ci association bi. kenn la aussi tamit ci làmb moo Modou Fadel suba làmb ji am fee moom tamit Mbaye Yékini daf ko tuddee drapeau ci stadium Iba maar ba mhm. boobu dinañ ci ñëw waaw dinañ ñëw ci combat boobu ñu ñëw ci Gris 2 Abdou mu nekk combat boo xamante ne yaakaar naa ne combat bu neex la ñoo ko gisee combat bu metti bu nara bu boo xam ne amateur yaa koy xaar mhm. ndax Abdou Diouf dafa daanoon Gris Bordeaux mhm. te souvent da ngay dégg ci communication mun naan ko sama jaarale sa mag laa lay jaarale. Mm-hmm. mais ab nga xam ne moom tam euh, Gris 2 màgg na te Gris 2 dafa am ci lu mu jóge mm-hmm. ci defet bu ko naqari. Mm-hmm. defet boo xam ne dañ koo daan ci jël boo xam ne keroog kuy amateur ñëw ci làmb ja am nga mbetteel ci façon bi mu daanoo. kenn xàmmeewu ko bëriwul. xeexul ñu mu ne ko daan ko. jël bu rëy. mu fanaasu loolu. abdu nag di ndaanaan Abdou li ma koy xaw a tiital mooy mooy gëj a bëre gi. Mm-hmm. waaye waaye na daaw jéeg. bëri na daaw ah, Forza ci Diourbel ak ah, Forza mais par rapport ak Kooka Laakor mais ba tey Gris 2 da ko ëpp ci parce que ndaw ak mag dafa xaw am différence. Mm-hmm. te donte ñaari fat at sax am noo koy magee. dëgg muy combat boo xam ne dañuy ñaan ki ko tëgg di jéey. Mm-hmm. yàlla defal ko ci réussite parce que ji li jéey bul fàttali moo sama drapeau jéy di ñaan Abdou Lahad Ndiaye moom tam nga xam ne keroog arène nationale meloon na ni ngeen teel taximaan daa bëri woon ni peep peep lu ne gis ngeen ko muy bis boo xam ne ñu ngi xaar deuxième édition bi bërki dem na mi moo koy waxaat mm-hmm. mais muy combat boo xam ne li ma naan bu nu xeexee mm-hmm. xeexu distance mm-hmm. Abdou mën naa am dara waaye bu nu dawee takkante jàppante gëwma Abdou ab chance ndax bëy dafa mën bëre boobu dafa mën a bëri boobu te ba de poole ci moo gën a féete ndaw te nag làmb ndaw lii sens am mooy saa bu ñu demee ni Abdou tëral nañ ko suuf. Hmm. mu décante situation bi ngir mën a bëreem. ngir màndi bis. Hmm. waaye toujours sport xale da ci ëpp sens ko mag. Hmm. ci Abdou ko mag. jërëjëf am na solo ba léegi ñu ngi ci combat yi nga xamante ni moo war a am ci semaine bi diggante samedi ak dimanche day ñëwaat ci beneen combat buur dox ci diggante euh, Cheikh Tidiane Niang Ndongo Lo. Ndongo Lo drapeau combat spécial drapeau sa jigéen la. Ah, Ndongo Lo. Euh, dafa mu obligation wu daan force. Hmm. Cheikh Yalnia la Ninkinanka moo gën a rusé ci lutte simple. Hmm. di ci ndaanaan lool. di hmm. doomi séeréer bari ay supporters. léeg mu ne ma buur man de ak cëriñ sax moo ma waroon ndax fi ma bokk. waaye làmb dafa ne ci man. moo gën a sedd. sëriñ jéggi rek waaw waaye làmb dafa waaye ne ci man. ndongolo. jóge fi ci ay problème yu bari. gis nga problème mu Grand Médine boobu. dëgg la ci xalem boobu ñu reyoon. Mhm. ñu am ci ay problème yàlla def mu dugg ci claf ba. keroog mhm. guddi ga muy signé ci claf ba dama ko ba mu ñëw ne ko ah, su ma rak nga def ma signé nga am contrat. Mhm. waaye claf bi war a ci woon dugg. am chance. bu Pape Mbaye nekk. Ramdan ne fa. doomu dàng ne fa. soq ne fa. Mm. ñaq jariñu ne fa mm. kalaaf boobu boo ci duggee génn ci ma xam ne yàlla mm-hmm. ndax nit da koy wax li mën a ne effectivement ma ne ko man bi ngay jàng bëri di jógee grand bëri di ànd ak ñoom Yatanza mm. keroog ak ñoom Mori Cargo keroog bi ngay bëreeg booy saraxule comme tey ci man mm-hmm. donc calaf bi waroo ci woon dugg parce que yaa jóge nga si diggante ak petit ñaa daan ko dal ci bébé bis daan ko donc xaaral ndax boo duggee ci lee di tegle ay défaite mm-hmm. te dugg na ci classe bi ba génn amu ci benn victoire mm-hmm. loolu fragmenté ko mm-hmm. yàlla def nag ci diggante bi delluwaat na ci père Birahim mi nga xamante ne que moom moo ko yar euh, ba gëm na ni que war na mën a amal dara Cheikh yan Yane euh, bëre dóor du du spécialité waaye nag mbër la mbër mbër la Cheikh Tidiane Niang mhm. mbër la dóor na fi combat bi mujj mu daan waa d'accord naa mhm. waaye ba tey bëri dóor du maanaam de mhm. dañuy wante dëgg donc ñëw na pour imposer ci boppam pour bokk ci mbër yi ñuy dégg ndax bu dee jàlloore rek du simple moom amatul lu mu ciy prouvé donc li mu war a prouvé boppam nag dugg ci biir xale yi fete leen mooy ci bëri dóor bi ndax moo ëpp million. Hmm. waaye nag xale bi muy dajal am pànk la. Hmm. waaw waaw waaw am pànk la te dafa mën a bëri nongoloo mu daan rek ba siggi taxaw appuyé avant cinq fois. mbaa mu mbaa mu mbaa mu mbaa mu def noonu muy def sëpp galañ daal di péré ndeysaan dal di acrobate champion la moom combat bu neex la moom dama naan bi ñu ko fi kalaat bi mu dugg hmm. bu fekkoon am na staff bu bu bu xam laa làmb dégg bu normal du ci ko bu wax na ko léegi ndax Ndongo boo xoolee dafa dafa dafa xaw a tas tas yaakaaru amateurs yi. Mm-hmm. Ndongo lu bi mu lëkkalikoo ñëpp dana am ci moom yaakaar. dëgg la bëgg ko. Mm-hmm. ci yar ci teggin bu mën li muy def. Mm-hmm. ba pare mu xajam Ndongo Lo dafa xajam kuy bëgg mbër da koy bëgg. dégg. dafa dégg pare xajam. mais bi mu duggee ci kalaaf bi laa ne leen Ndongo Lo fii mu dugg baaxu parce que bëgg bëri tam ba mu tax nga dugg ci loo xam tam du dem. du dem. parce que moom ci biir kalaaf bi dem na ba xam ne lii ma dugg warumu ci woon dugg. parce que xamul lan la di ci jël ay blessures yu metti ak ay def tegaloo. waaye li muy dajal ku jàpp ni ci bëri simple bi rek la mën a itam nax nga sa bopp. parce que ñoom xam nañ ne actuellement bëri simple bi dangay bëri téeméeri combat. am cent mille ñibbi bi da bëri benn combat am million. ndeysaan. <laughs> masamba du morom bi léew laay déedéet. waaye ñu cëralee ko suñu jigéen ju baax muy pël. pël ndeysaan. li li ma mhm. toujours c' est difficile que vivre avec les femmes. Mhm. waaye impossible que vivre sans les femmes. Mhm. góor gu baax ku ne jigéen la dooleel. muy jàmbaar bokk ak ñu liggéey bi. Mm-hmm. gëm boppam. Mm-hmm. nangoo liggéey. Mm-hmm. takk sëram. gëm ni daa war a am li nit ñi di am. ba pare yor ndeyam yor ay famem di nekk nit ku bëri ba jom. ku bëgg lu baax. ñu ñaan ba yëg ni lii muy def leen naa ko ko ki démb. bisu pël bi ku fa ñëw danga xam ni. tamaata njab ak bu loxoti bokkul. tuddee nga drapeau drapeau pël bi dañ ko sëb sëb pël bi euh, ndax ñoo bokk drapeau xam nga fareel pël dañu ko dañ dama ko mës defal benn émission am boobu pël euh, ci anniversaire am mm-hmm. euh, caatum ndaayam mm-hmm. keroog wax ba jooylu ñun ñëpp ndeysaan man bi ma juddoo fii laa fekk nday ak baay waaye man kii laa ndax mooy suñu nday mooy su baay. dafa baax. moo tax xiifuñu. Mm-hmm. maruñu raflewuñu te ñu ngi jàngee ci école yu baax yi wa maa shahidnaa illaa bimaa 'alimnaa. dëgg la laay wax loo xam. dara jëye Xaadimu Rasuul ku dem ba soqi ku bijaaw moom dootoo ko nekk. ndax lii moom avertissement la bu doon football la man la carton jaune. moo tax sans saa bu dikkee bu buddi waaw waaw carton jaune la jarte buddi. man de fan yam ne bu génn fii. <laughs> donc pël bu amee bés. bokk ci ni membre ba noppi nekk bokk ci les membres clés. Mm-hmm. ne naa ko dëkk bi de nit mën na la fee gën mbaa mu ëppale la waaye gën la fi jikko ak gën laa yaat dënn mhm. gisuma ko dëgg la man ak moom on a fait toutes les guerres mhm. pël mhm. an nañu gàmbi léegi liggéey wala bëgg la xaalis xaalis ak ndawal ba mu ni tey. Ah, li ñoom la. waaw dem këram ba xam te xoola xaalisam lay jël xam na ni que da ngeen koy yor yéen. waaye dafa am l'esprit de partage. ak xol. Mm-hmm. bu mu bu mu séddoo kon yàlla na yàlla na jàmmam yàgg waaye daal fadel bu subaa daal nañu teel a génn rek man sama caay photong ngi fi mu ni bu soobee yàlla moom laa bëgg yóbbu suba si caay boobu dina génn caay photong la wala <laughs> xew na fadel ma lay jaajëfal bu laa trop jërëjëf vraiment woo nga déplacé wu ñëw ba Maristes naam dafa enclavé wu Eh, di la jaajëfal baax kontaan naa ci yow léegi moom dootuma la tooñ. takkoo sax ñaareel dama la doon sàlli xel rek dégg takkuma te kalaa nga baal ah, fadeel waaw jiili bu mu la bu mu la baab géwél daal ko déplacé yëwi te géwél ngay dellu loolu mën ta ñàkk loolu bitti la xanaan ba pare bu buur tam nga waxaale ci ne géwél amagul xaar ah, waaw waaw ah, tam mu leer loolu moom fadeel nag sa xel ndax ndax le ministre de la lutte du le ministre des sports de mm-hmm. le ministre de la lutte wax ci somm Mm-hmm. le ministre Matar ba sëti xaalis ma ba jax boobu xam ni. moo baax saa bu tabaski jotee. Mm-hmm. boo ko fëggee. mu jox lu boo ko fëggul mu jox la barke Cheikhul Khadim. Ah, te gis naa mu di ko def. ca fa mu dëkk. Mm-hmm. diggante Fatick. Gandiaye Fayako Combi Diouroup ak dëkk yi ko wër yépp di ko defit ci monde sport. saa bu jëf jotee mu jëf ko bi waji laayil kërim mhm. li may ma seen papa Gueye mën na koo seede donc yëg na ko xam na ko te incha allahu dana ko def mhm. alhamdulilah ñu ko ñaanal rek dinañu <laughs> <laughs> ah, may moom daal nañu ko ñaanal rek waaye nag <laughs> le DG des impôts ah ah le DG des impôts moom booy jaaw booy jaaw boo baax bu baax. ah chéri maman nag. bàyyi seex bàyyi seex Fadel. foofu baax na. <laughs> buur ga buur buur gàll ci Keba Kanté. yii kooku eh, kooku. nga xam ne kooku kooku sama mbir la. buur bërki dem damaa dugal benn kaa Keba woo ma. Mm-hmm. bëgg sox ñu koy wax. Keba ndeysaan ak a baax. ne ma Fadel kaay sama biro mm-hmm. ma daal di ñëw bureau mu ne ma Fadel kaa bi lu ñuy def ak moom. ma ne ko mm-hmm. li nga ko yéene ak li nga man moo ñu lu bari. teg ko sama loxo demal demal jox ko. Kéba. billaahi wallaahi barki démb barki démb fii laa ko fekk. ca fa ñu jaay xar ya barki yonent yàlla Muhammad lu baax Fadel. Mm-hmm. ku ko def. Mm-hmm. ku ko wax la bëgg. maa la ko wax. mu ñëwee dañuy kii jaay xar yi xaw ma noo mën def waaye sóoral buur. nag ni daaw def na ko boole baag baara ñing baara doomi Moussa ma ca ma booleel baara woo man mii la man daf ma kaata deew. waaw kaata ma kaata mais ren dama bëgg. émission bi sama émission. bëgg mu xool li ma. dina la xool da ma buur damaa mës a ànd ak bas. ñu jaar ci autoroute bi ma yor moto di dawal jékki-jékki Kéba doublé mu. Hmm. corne serré ci kanam. avant mooy jub oto bi maa ngi doon waaj a jooy ndax xanaa di di la ba xët. kaata la la xët laa illaa. doppat la xët ba xëtaale bas bi. waaw yooyu lay def yooyu lay def. dama ne yàlla na jàmmam yàgg. moom mm. jëfkatu yu baax yi ci réew mi. buur mm-hmm. yaa ngi fàtte kenn it Abdou Aziz Ndiaye. ah Abdou Aziz mm-hmm. Ala Ndiaye. ala nga xam ne ah. Aliou jigéen ay maam nga xam ne def lu baax rek mën a ci réew mi. walaay la sa Aliou Kurma jigéen nee naa ko maam Cheikh Sil Hadj Malick dafa wax ni. Mm-hmm. sama bés bu ci ne Aliou Kurma jigéen a ci mën ne bu leen ko wooyee te Aliou Kuruma jigéen di leen ko wooyee Aliou Kuruma góor. Ali jëfi góor lay jëf. waaw Abdoul Aziz nag ñu tuddee ko Moulay Abdoul Aziz Al Amin. dëgg la. di mag ci Baye Ndiaye di rakk ci Masata Ala Ndiaye taaliba Seydi Boubacar boobu sama xarit. Mm-hmm. nga xam lu mu mën a am ci àdduna jëf lu baax force Covid bii. Mm-hmm. bi mu ñëwee. Mm-hmm. keroog ba muy dajale les populations de la ville de Guédiawaye maa nga fa. maa fekkee ba mu jox ceeb ba. ku ci ne mu yëkkati la muy jox. ak diwlin ga enveloppe ya xanaa rek. dañuy dol rek di ko gën a jaale. allah maam sama maam mm-hmm. bint mu baax mi. Mm-hmm. nga xam ni wéetal la woon ci moom. dëgg mm-hmm. wéetal ko tey. njaboot gi mu fi bàyyi yàlla nag caal teg loxo. jëfam daal. feeñ na masalikul jinaan jëfam feeñ na ci projet Tiwa jumaay Tiwaawan gi jëfam feeñ na ci écrit yi jëfam feeñ na ci école yi géejawaay yi feeñ na ci jumaay géejawaay yi ba noppi feeñ na ci social kon yàlla na jàmm feeñ ci social parce que dafay jëf ci suuf te bëggul ko wax maa ngi koy nuyu faral te parce que approche maa du ñu di di jaar dugg hôpital def opération moo fay opération yi kër Abdou Aziz yow toogal yow bàyyi dinañ fa dem mais baa waxal ak jëri tamit bàyyi dinañ fa dem yàlla bu ngeen fa am dara yow taggal sa yow taggal say maam ci ngéwél taggal sa bopp waaye léegi dëkku de tagg boppam soose biraan soose mi ci soose ku ci seng naat sama maama daal ñaanal ah, mbokk la. ah baa ngi rim ngoone maa soose àll ba ban tamaale ganda par ma jigéen bi dafa yow nga may kàddu géwal ñoom di nga teg sa benn tànk mais ci ñaar duggagul. <laughs> di ma wasaare neex yow. wasaare neex la yéen fi mën. billaay <laughs> jërëjëf mbokk yi gis ngeen. Euh, ñu noonu samay kilifa lañ waaye bu ñu toogee ndeysaan di waxtaan ay famille lañ. ndeysaan ñoom ñëpp dañuy dañuy boole comme comme ni ay moroom lañ buur géwal bari na ci ñu baree bari ñi nga xamante ne bu ñu wéetee papa lañ koy wax. mais mm-hmm. gis nga bu ñu toogee nii da nga xam ne fam ak mbaaxam ak yaatoom rek. Mm-hmm. moo am solo ñu koy ñaanal moom it yàlla may ko gudd fan ak wér. Mm-hmm. ba bépp naal boo xamante ne am na ko suñu borom kàttanal ko dooleel ko ba mu defee ko nu mu ko bëggee. kii nag sama waay la Cheikh Mouhamadou Fadel moom maa ko bëggal suma bopp ndax su ma toogee damay kaañoo ko dama koy tooñ. bari na ñoo xamante ne dañ naan ma bàyyi fadal mi ngay sonal sonal nga ko sonal nga ko mais vraiment nit ku baax la. parce que mhm. nag ci biir nit da ngay tànn wala di nga mën a xàmmee kilo la tibb ak ki cof coof. Mhm. parce que ñun nëpp ay borom xel lañ. ñu koy ñaanal moom it yàlla suñu borom guddal fanam ba mu ànd ak wér ba lépp loo xamante ne mu ngi koy def ci social mhm. euh, yàlla fay ko ci lu kawe njortam di leen jaajëfal bu baax a baax a baax est-ce xam nga ni bërëb bi yéen a fi njëkk toog def émission kon dina barke barke Cheikh Moussa Mbacké dana barkeel de. ah danañ ko waxaat. ñun du ñu ay géwéli àll fitti. déedéet. réew mi yeneen bi am géwél. Ah. sëñ am géwél. Ah. Amalaaji Malick am géwél. nga sànc bërëb bii ak salon bu yanji bii ci wasaare. ay géwél tàmbali ko. Mm. ba déwét. jërëjëf jërëjëf mbokk yi kon dégg ngeen li wolof naan ku ne géwal baaxul sa judd rafetul mm. wala amoo loo mayee ñu leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal képp koo xamante ni doomu géwal ga commencé ko ci sama bopp ak réew mi yëpp di leen jaajëfal mbokk yi di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba léegi incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërë ngeen jëf